axrijna min zulumaati lwahmi wa akrimna bi nuuri lfahmi waftax calayna bi maxrifati alcilmi wa xasin axlaaqana bilxilmi wansur alayna xazaa'ina raxmatika yaa arxama arraximin yaa rabbal alamin mbokk yi bàyyi xel ci Sud seen rajo assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa ginnaaw bi ñu santee suñu borom subhaanahu wa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 ñoo ngi nuyu soppe almisbaax yëpp di beral ab nuyoo jàngkati alquraan yi di nuyu jàngalekati alquraan yi di nuyu ilimaan yi ak mboolem ñi nga xam ne ñi ngi ñuy topp waxtu wi ñi nga xam ne ñooñu doon topp lu jiitu koor gi ak ñi nga xam ne waxtu wi moom léeg-léeg ma tooñ looyeen yeeg siise siise yi ne leen waxtu xëdd la itam alakule kulli xaal waxtu wu barkeel la yal nañ ci dajee ngërëmul borom bi subhaanahu wa taala ci lépp loo xam ne moom la ñuy wut weeru koor weeru tiyaaba la weeru e, defaru la defar ay jikko ndax moo tax mu ne laallakum tattaqun moo tax yonent bi ne ku woor bul xuloo bul xeex ku bëgg a xuloo yow sax waxuma di àgg ci xeex wax ko ne ko damaa woor kon kooku mi ngi womma nit jëme ko ci lewet mi ngi womma nit ñi jëme leen ci ak mbaax yàlla nañ ko jeexal ak jàmm yal nañ ci dajeeg ngërëmul suñu borom subhaanahu wa taala dañoo nekkoon ci di waxtaan ci ay tomb yoo xam ne day delluwaat ci jikko waaye day delluwaat ci doxalin woo xam ne dañuy bëgg doomu aadama bàyyi ci xel ñu ne woon bu ñëwee danañ waxtaane lu jëm ci wàllu al infaq ñi di ko wax dépenser wala joxe joxe euh, bunt bu yaatu la waaye ci ay jikko la bokk ndax mënta ñàkk ci àdduna àdduna moom dafa mel ne jokkalante rek moo fi am léeg-léeg ki nga xam ne daa bañ a joxe kooku li wax ku nay te fekk la muy joxe war a nekk farata moo tax al infaq boroom xam-xam yi dañuy wax ne masdaru anfaxa la anfaxa yunfiqu infaqan fa huwa munfiqun noonu lañ koy tekkee muy delluwaat ci li ñu tax a rek te mooy joxe léeg-léeg ma jaar yooyu ci wàllu luxaat yi nga xam ne moo ci aju waaye mën naa gudd te bind bi mën na koo bañ a jar moom la ibnul arabi di wax naan isan la am saktum xasiyatal infaaqi baat boobu la jëfandikoo woon wax ne wan nafaxatu maa an faxta wan tafaxta alal iyaali wa ala nafsika mu ne bu ñuy wax dépense maanaam ab joxe ñu tudd ci dépenser wala dépense rek ci làkk wële mooy li nga xam ne nit ki da ko jox mu mel ne lu mel ne lu muy joxe muy dellu ci njabootam wala muy delluwaat ci boppam wala muy delluwaat ci boppam jubluwaay bi nag ci baatu al infaax muy istilaax bi bu ma ko doon wax mooy rek ixraajul maali at-tayyib fi taati wal mubaaxaat maanaam génnee alal joo xam ne alal ju teey la teey moo yóbbaale dagan moo bale lew ndax wax naa ne alal dana dagan te du lew waaw mbir a ngi nii moo xam ne lekk ko moom dagan na waaye lewu la dagan mooy loo xam ne may nañ ab jullit mu lekk ko liñ mayut ab jullit mu lekk ko lu mel ne mbaam mm, xuux ma wala lu mel ne sàngara mu naan ko wala yu demee noonu nit ki mën na koo moom mën na koo am mu lew ko maanaam lew na ci ni ko amee waaye dëgganut bu fekkee daa liggéey wala da koo jënd ci alalam ju ko jum moom waaye du nekk loo xamante ne du nekk lu tayib li li dagan nag moom day boole lew ak dagan nit ki door koo mën a lekk mhm. léegi nag dépense boobu nit ki di joxe te di ko jëmale ci loo xamante ne nii lu dagan la loolu la ñuy tuddee dépasse moo xam li nit ki dépensé jëmee ko ci njabootam la wala ay ñoñam layal li nga xam ne moo leen doy kemtulaayal li nga xam ne moo leen doy loolu mooy tudd dépense maanaam nekku ne ñëpp koy tolloole waa dëkk bi kan nangam la ñuy dépassé mën nañ koo bañ a tolloole waaye lañ ko gàll mooy euh, la tolloog la doy njaboot ga boroom xam-xam yi dañuy wuute sax ci kan la war ci kan la ab dépense war man tajidu wala man tajibu lahu an nafaxa fi miqdaariha boo demee ci seen wuute ya indi yu bare bare yoo xam ne buñ ko doon waxtaane ci angalu fiq bi danañ ci ñëw waaye li mu bëgg a wax rek mooy waxtaane baat bi te mooy ñuqi maanaam làmb ci sa poos joxe wàccuwaay bu rëy a rëy lam moom moom al infaax danaa ci ñëw waaye rawatina nag ci yoonu yàlla rawatina ci yoonu yàlla te mu yi yëpp moo tax baat bi maax mi mu am an nafaqa alquran indi na ci lu baree baree baree bari am na foo xam ne suñ borom da fa faa indi waaye jublu ci azaka azaka jim farataal wa mimma rasaxnaahum yunfiquun borom xam-xam yi firi dañuy wax ne ay yuzakkuuna wa yatasaddaquuna mooy li leen yàlla wërsëgale day yunfiquuna dañ ko dañ ciy joxe mooy dañ ciy génnee asaka cala ca war a doon asaka waaye itam dañ ciy saraxe dañ ciy saraxe suñ borom da koo teel a tudd ci alquran ca kaw moom joxe moomu waaye rawatina joxe ci yoonu yàlla am na foo xam ne suñu borom daf ko tudde sarax waaye tudde ko saraxub coobarewu bii nga xam ne bokkut ak asaka nga xam ne nit ke coobarewu ci alalam génne ci joxe te yàlla tax tiyaaba ju baree baree ci nekk muy atatawwu bis sadaxaat alladina yunfiquuna fi sarra'i wa dharra'i borom bee ngi tagg ñi nga xam ne dañuy dépenser seeni alal ci jamonoy xat-xat ak jamono yaatu yaatu moo xam jamono daa neex moo xam jamono daa naqari ñoom joxe xooluñu ci loolu xooluñu ci loolu ca dëgg-dëgg ñooñu ay tab lañ am na fu mu waxee foo xam ne ndigal la ca joxe moom borom bi dafa wax ne wa anfaqu mimma rasaqnaahum sirran wa alaaniya waaw ña ngay dépensé ci la leen yàlla wërsëgal ci lu nëbbu ak ci lu feeñ ci lu nëbbu waaye di dépensé ci lu feeñ ñaar yëpp kon joxe moom la borom bi di tudd noonu waaye baat bi ñëw ci alxuraan ci ay maanaa yu bokkut wax naa la bu njëkk bi azaka lay tekki bii di tekki ab sarax boo xam ne saraxu coobarewu lay tekki am boo xam ne nag day ñëw ci dépensé ci wàllu jihaad maanaam jihaad ba muy am te mooy kër kër yi ci yoonu yàlla ay fas lañ daan war ak i gëléem ak i tànk yori jaasee ci xeej di jàkkaarloog ñi bañ diine ji taxaw ba diine ji taxaw borom bi ne wa anfiqu fi sabilillah dépensé leen ci yoonu yàlla yoonu yàlla nag euh, bunt la boo xam ne borom bi subhanahu wa taala ci waxinam wu xóot wu am njariñ wi li tax mu waxe nii moo yaatal bunt bi dépensé ci yoonu yàlla yoonu yàlla mën naa doon dëkk bi soxla jàkka ñu fexe ba jàkka am fo ñu mën caa jaamu yàlla mën naa doon dëkk bi soxla jàngukaay ñu fexe ba jàngukaay ba taxaw ñu mën caa jàng nu ñu xamee seen borom xam lu leen jëriñ ci àdduna ci yoonu yàlla mën naa doon ko am ordinance nga jàppale ko ca mu faju ji te yàlla tax ci ci yoonu yàlla mën naa doon ko am jafe-jafe dépense nga dimbali ko jubluwaay ba rek lay doon yéene ja yéene ja yéene ja moo tax mu ne alladina yunfiquuna amwaalahum fi sabilillah ñooñu borom baa ngi leen di tagg waaye alladina yunfiquuna amwaalahum mooy ñoom de dañuy dépenser seen alal waaye yàlla yëmu ci ne dañ koy dépenser waaye dañ koy dépenser fii sabilillah ci yoonu yàlla dañ koy dépenser ci yoonu yàlla ñu ne loolu mooy jihaad waaye jihaad moom euh, baat bi daa bari foo ko mën a bootal ndax wa jaahidu bi amwaalihim jihaad leen ci seen alal kon nit ki day yëg ne alalam mën na cee jihaad waaw nit ki da yëg ne waxtoom yu mu am mën na cee jihaat nit ki day yëg ne dooleem ji mu am mën na cee jihaat nit ki yëg ne kàddoom gu baax gi am mën na cee jihaat kenn ku nekk rek la muy def te yàlla tax bunt boobu day bunt bu yaatu boo xam ne buntub jihaad la te mooy kër-kër yi ak juhdu googu nga xam ne nit ki da koy def ci taxawaay boobu mu am moo tax borom bi ne wa ma lakum allaa tunfiqu fi sabilillah boobu mi ngi wone jihaad ci yoonu yàlla ci lu mel ne xareeg yooyu daan ne walillahi miraasu samawati wal ard laa yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa xaatala yàlla nee na ñëpp duñ yem àdduna moom duñ yem mukk ñi góorgóorlu ci yoonu yàlla duñ yem ak ñi yàccaaral mukk ñi am seen alal góorgóorlu di ko def ci yoonu yàlla mënuñoo yem ak ku am xéewal ba noppi bañ koo def ci yoonu yàlla ba noppi nga ne ñëpp a yem a ah, xanaa kon jàmbaar dootu gaawtu waaw ah, bu jëf yameeg toog olof nee na bu boobaa jàmbaar dootu gaawtu borom bi ne laa yastawi minkum man an anfaxa min qablil fatxi wa xaatala ñi nga xam ne day dañoo dépassé seen alal lu jiitu fatu Màkka di am ba noppi euh, laxasaay waat dem ca front ba xeexi ñooñu kat duñ yem mukk ak ñi nga xam ne defuñu loolu ba àdduna tukki waaw ña fekke woon Badar duñ yem mukk ak ña fekkewu doon badar ndax euh, taxawaay bañ amoon ak yitte ju rëy amoon ak lañ defal lislaam ñooñu liggéey bu rëy lañ defal lislaam boo xam kenn mënu leen a fay di toll yàlla xam na ko kenn mënu leen fay lu ñu toll ñun ñi nga xam ne léeg defaloo dara lislaam te léeg-léeg waa lislaam jox la teraanga ju ne ci turu lislaam boo ko xalaatee ca ñoom da ngay yéemu ci yàlla li dalal sam xel ba nga amuk dal moo yëg gi nga yëg ne suñ borom lam leen dencal ci ak pay pay gu rëy la waaw pay gu rëy la ëllëg yowmal xiyaam doon naa ko wax buñ demee Uhud buñ demee Uhud nga gis Musab ibnu Xumayr tëdd fa bañ fay dem nga xam ne at mooma ma fay dem daanaka ñoo maase ci ay at Musab lu ne defal na ko lislaam wax nañ ne keroog bi mu faatoo buñ ko sàngee bopp bi tànk yi day feeñ buñ sàngee tànk yi bopp bi day feeñ ndax benn jàllaa bi la amoon allahu akbar waaw tey nag lislaam ak teraangaam yu yaatu yi waaye yàlla nee na ñooña duñ yem ak kenn mukk laa yastawi minkum man anfaqa min qablil fatxi wa xaatala nee na gaa yooya ulaika asamu darajatan min alladina anfaqu min baad wa xaatalu waaw ñooña day eh, borom bi subhaanahu wa taala nee na ñoo ëpp ay daraja ñoo gën a ay daraja ñi nga xam ne dañoo dépensé seen alal ginnaaw fatxu Makka ba noppi xare waaye nee na nag ñoom ñëpp laa dencal ak pay wa kullan waada laahu lxusna wallahu bima taamaluuna xabir borom bi nee na ñoom ñëpp laay fay maanaam ña defoon ca jamonoy metti metti ya dara amagut ubbiteeg màkk amagut ak ñi nga xam ne ginnaaw bi dañoo ñëw dépenser seen alal xeex ci yoonu yàlla ñee dañoo ëpp daraja waaye nee na wa kullan waada laahu waaw ñoom ñëpp suñ borom dig na leen aljanna alxusna pay gu rafet mooy aljanna ndax borom bi bi maa taamaluuna xabiir li ngeen di jëf lépp la xam lépp lépp leer na ci moom nañ dara na buwut ci moom mbokk yi joxe ci yoonu yàlla dafa am solo suñ borom fi fu mu waxee rek boole ci baatub joxe waaw waxaatalu waxaatala waaye man an anfaxa man anfaxa an anfaqu allaa tunfiqu wa anfiqu alladina yunfiquuna yooyu yëpp rek delluwaat ci baatu joxe wa mimmaa razaqnaahum yunfiquuna mu amaat beneen joxe boo xam ne mooy nit ki li nga xam ne moom lay dépensé ci ak njabootam li nga xam ne moom lay dépensé ci ak njabootam muy dépense yeeg dund yeeg fere yi loolu itam daa am wàccuwaay bu rëy boo xam ne da koo amee fii waaw borom bee wax sax ca ka bàyyi doomam maanaam soxnaam te fekk mu ëmb ak ka yor soxnaam ci kër ga ak dundu yaag nam ware wa in kunna ulaatu xamlin fa anfiqu alayhinna waaw ci suratu talaaq nee na kenn ku nekk nay joxe nay dépensé na wërsëgam toll maanaam ca man manam fa mu toll ku yàlla man nga mën a joxe lu yaatu joxeel ba mu doy boo ko mënut itam li nga man moo xam mu bari mu néew na nga ko bokk ak sa njaboot li yunfiq su saatin min saatihi waaw bunt bu yaatu la te mooy dépenser ci sa njaboot tiyaaba ju rëy la léeg-léeg nit ki am ci tiyaaba joo xamante ne tiyaabay jihaad la ndax kër-këri gi muy def ngir wut lu mën a e, jox njabootam loolu féete ci moom ak jaamu yàlla mbokk yi joxe lu am solo la beneen maanaa boo xam ne alxuraan andi ko te mooy e, maanaam joxe goo xam ne nit ki day joxe waaye dafa ragal ak ñàkk joxe ba noppi ragal ak ñàkk ñàkk nga xam ne xasiyatal infaq e, moo ko ci yóbbu muy kof-kofi rek nga xam ne day mujju nay waaw day mujj dem ba nay e, joxe googu nga xam ne mooy dépense dafa am baat bu muy dendal nga xam ne mooy leble leble dafa am joxe dépense boo xam ne nit ki day dépensé joxe ko te yàlla tax am loo xam ne nit ki da koo jox nit waaye leb la da koo da koo lebal am na koo xam ne li muy jox boroomam da koo dépensé waaye loolu itam bor la fi ne ñaar yëpp bor la bor bi nit ki lebal nit ki ne ko nag ma fay ak li mu joxe te yàlla taxit da koo jox boroomam boroomam subhaanahu wa taala da ko caa ameel ak fay mooy alxard alxasana moo tax ci maanaa moomu euh, am na aaya ju ci ñëw joo xam ne imaam ibnul xayim rahimahullah day wax ne fi suñ boroom subhaanahu wa taala wax naan man dha alladi yuqridu allaha qardan xasana fa yudaacifahu lahu adcaafan kacira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turjaxuun mu ne aaya jii de suñ borom subhaanahu wa da ciy indi ay wax ju jot wax ju wax ju teey waaye tëgge ko ak digle digle ku naan lebal leen ma lebal leen ma bor bu rafet ma fay leen ba noppi fulal leen ko allahu akbar borom bi la jox alal ji nga moom moo naan la ngir yàlla ngir xanaa bu ma nee yàlla naan ngir yàlla sax mu jaaxal la waaye moo naan la lebal ma ci lebal ma ci lebal ma ci nag mënoo mënoo kii lebal ma ci te yàlla tax waaw lebal ma ci tama tax nga ne yàlla fu bu ma lebal fu ma koy def mun la def ko ci daara ji seet ci sama loxo nga ko teg def ko ci li ngay dundale nit ki ci sama loxo nga ko teg def ko ci def gu baax gi sama loxo nga ko teg mu ne danaa la ko fay te dama la koy ful dama la koy fulal adaafan mudaafa waaw dama la koy fulal dama la koy fulal ba mu bari ba mu bari ful mooy triple la ko xam nga tey kii leb ci banque bi wala ki lay lebal xaalis man na mën na koo lebal ba noppi am lum ca teg ne ko nangam laa lay lebal boo may fay da nga ciy teg nangam pour cent maanaam téeméer bu ne eh, da nga ciy teg nangam téeméer bu ne da nga ciy teg nangam borom bi subxanahu wa taala nee na man waxuma la danga nga ciy teg nangam mais bu ne. dama lay fayaat lu ni dama la koy fulal fulal fulal waaw maanaam téeméer la woon mën naa laa fay junni waaw cinq cent la woon dama lay fay cinq mille wala dama lay fay lu ko ëpp foofu mooy dama la koy fulal moo tax foofu ñuy tuddee dépense bor bu rafet ndax lan soññi bakkan soññi nit ki ci mu mën a joxe te yàlla tax soññi nit ki te mu mën a joxe te yàlla tax ndax xam ne li muy joxe day dellu siwaat ci moom maanaam du sànni ndax am na koo xam ne moom li ko tax di mën a joxe faawu rek mu laaj lu tax waaw li may li may joxe lu ma ciy am li ngay joxe fu mu jëm li ngay joxe bari na nangam nangam loolu maanaam mbirum capitaliste dana ànd ak loolu borom bi bëggut kuy yàq waaye bëggut ku nay bëggut kuy bañ a def farata waaye bëggut ku gàttañ lu it ci def farata moo tax ñaar yooyu euh, nit ki day am yitte ak góorgóorlu ba xàmmee ko ci wàllu joxe mbokk yi suñ borom subhaanahu wa taala daa ñëw sax di ci joxe ay misaal nee na misaalum ki nga xam ne day joxe ci yoonu yàlla mi ngi mel ne koo xam ne dafa ji am pepp waaye aw pepp la ji wenn pepp dugub baykat yi xam nañ li may wax nee na pepp dugub boobu mooy sax mu mel ne dafa am juróom-ñaari gub juróom-ñaari gub nee na ci gàttal ci minimum gub wu nekk am lu ma téeméeri pepp allahu akbar wenn pepp nga jiwoon pepp wi am juróom-ñaari gubi dugub juróom-ñaari gub woowu benn bu ne am téeméeri pepp kon am nga juróom-ñaar téeméeri peppi dugub ci wenn pepp wi nga jiwoon wi nga jiwoon borom bi nee na kii dépensé ci yoonu yàlla noonu la mel yàlla nee na maay ful nu ma neexe ndax moom de ku yaatu la moom borom bi subhaanahu wa taala teyit ku xam la aaya joojee ci suratul baqara la ko borom bi subhaanahu wa taala di waxe mathalu alladina yunfiquuna amwaalahum fi sabilillahi ka mathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudaa'ifu liman yashaa'u wallahu waasi'un alim kon suñ borom subhaanahu wa taala mi ngi misaalal nit ki nga xamante ne nii day dépensé ci yoonu yàlla ne ko mi ngi mel ne koo xam ne ab baykat la boo xam ne dafa ji lu toll noonu la cay góobee mbokk yi maa ngi waxtaanee dépensé ci yoonu yàlla loolu lay laytaayul waxtaan wi la ci joxoñ bi nga xam ne moom la am ci nit kii def te yàlla tax fi mu ne dépense tàmbulee ci farata ji ci sa kër xëy suba joxe dépense ñu dem marché nduggi tiyaaba ji ci nit ki am léeg mu tolloog tiyaaba yi ku dem ca xare ba di xare dem góorgóorlu liggéey ba am xéewal mën a fay sa facture courant mën a fay sa facture ndox mën a wut yére yooyu muure saw awra nga wut ko ci yii yëpp nit ki def ko te yàlla tax te jaare ko ci anam gu lew da ciy am tiyaaba waaw ndax loo xam ne saa su ko nit ki deful woon ñu bindal ko ci bàkkaar su ko defee ñu bindal ko ci tiyaaba bi loolu lépp jàllee nag mu def nag dépense nag ci yoonu yàlla nag ci weneen yoon woo xam ne mooy e, buntu yi borom bi subhaanahu wa taala ubbi nekkuma ciy lebal ana moo may lebal ana kan mooy jàppale nangam ana kan mooy def nangam loolu da daan am yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ne diine ji dafa soxla nangam dañoo soxla nangam dañoo soxla nangam ak lépp loo xamante ne nit ki mën na koo am te loola diw yiw ñoom dañ ci daan góorgóorlu seen kemtalaayal kattan waaw tax àgg ci yàlla moom ci joxe ni mën a yóbboo nit ci yàlla néew na leneen loo xamante ne mane na ko noonu ndax fi ngay jëlee nit ki day sedd xolu bo maanaam borom bi subxanahu wa taala daf ciy bëgg lool lool lool te lim ciy diggee ciw yiw day bari moo tax alquranul karim indi na ay aaya yu baree bari yoo xam ne baatu joxe da cee nekk am na foo xam ne al infaq lay doon al al al infaq waaye mu jublu ci asaka am foo xam ne sarax la ciy jublu te mooy joxe coobarewu da ngay tàmbali rek e, alquranul karim ci suratul baqara borom bi subhanahu wa taala tàmbulee wax rek tu tudd joxe waaw ñi nga xam ne li leen yàlla wërsëgal ñi ngi ciy dépensé ñi ngi ciy joxe waaw wa yun razaqnaahum yunfiquun nga xam ne alladina yuminuuna bil xaybi wa na salaata wa mimma razaqnaahum yunfiquun waaw mbokk yi ne tafsirkat yi mooy ñi nga xamante ne dañuy génnee azaka ndax doomu aadama bi muy man muy yow kenn ku nekk ñaar a ko séq ñaar dong la séq muy sa borom ak say moroom mhm. mu yàlla ak nit ñi laa bëgg a wax borom bi subhaanahu wa lim bëgg lim bëgg ci yow moom la wax nii léegi mooy wa yuqimuuna salaata ginnaaw bi yuminuuna bil xëy bi amee nit ñi nag li dox sa digganteeg ñoom mooy wa mimmaa razaqnaahum fi li nga leen ëpp ëppalee nga leen ciy mosal waaw nga di leen tane di leen dimbali yàlla nee na man nga yëg ma laa bëgg nga yëg ne maa ngi fi boo ma xasee kontaan naa nit ñi liñ bëgg ci yow mooy nga bàyyi leen xel nga bàyyi nga bàyyi xel seen sa sa digganteeg ñoom maanaam nga rafetal sa digganteeg ñoom rafetal googu nag ci la boole loolu walladina yuminuuna bi ma unzila ilayka wa ma unzila min xablika wa bil axirati hum yuuxinuun borom bi ne gaa yooyu nga xamante ne ñoo am jikko yooyu nga xam dañoo am jikkoy ngëm nangoo julli maanaam tabe gëm alquran gëm alaxira yàlla nee na ñooñu ñoo ci njub te ñooñu ñooy gaa ñi nga xam ne ñooy tàbbi ca texe ga ëllëg yàlla nañu ci yàlla boole borom bi subhaanahu wa taala day am ay gaay yoo xam ne ay gaayam lañ ñooñu nekk ay champion a li la mu tudde leen alladina ci alxuraan yu bari yoo xam ne lam cay teg aw tagg lay doon jikko lay doon yoo xam ne day bëgg ñim bëgg a gërëm jikko woo jikko yooya ki ko jikko woo nag ba bokk ci ñi nga xam ne li leen yàlla wërsëgale dañ koy dépensé ci yoonu yàlla te jëmmi borom bi tax borom bi nee na gaa yooyu ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun gaa yooyu day ñoo tegu ci njub gaa yooyu ñooy ñi nga xamante ne nii ñooy way texe ñi yal nañu ci yàlla boole yal nañu yàlla boole sàmm yal nañu yàlla defal kendalu jàmm yal na yàlla aar ñu yal na yàlla musal ñu yal na yàlla def jàmm ci réew mi yal na yàlla def jàmm ci réew yu ko wër yal yàlla nangul sunu koor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 wa rahmatullahi taala wa barakaatu